bàyyiwul dara sama bët yaa ngi sax waaw da sax benn yoon rek na dafa nii nii ngay xool nii dafa nii voilà. loolu du dund. loolu noonu rek. loolu la. bu xasee sax benn yoon ci ànd ak raxas ma seen loolu bu sax benn yoon rek jox ko génnee ko jooy ko rek.